asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Codice della Strada euh, ñu dellu siwaat rek jàll ci yeneen leçon euh, ci argomento bi ñu commencé woon muy guida in relazione alle qualità war a commencé bi yoon ci primo soccorso euh, balaa maa commencé damay expliquer lan mooy primo soccorso primo soccorso mooy bu fekkente ni accident dafa am yow nga ñëw tombé ci gis ñaar ñoo xam ne dañoo ay ñoo xam ne dañoo def accident léegi nekk ci état bu metti bu critique ni nga war a comporter yow avant ambulance di ñëw wala soccorso yi di ñëw loolu moo tudd primo soccorso yow li nga war a njëkk a def parce que lu décisif la loo xamante ni boo ko deful rek boo leen seetaanee mën naa indi yeneen yeneen problème yoo xamante ni kenn du ko mën a lijjanti moo tax mu commencé ci ni soccorrere un ferito dalla strada e obbligo di legge maanaam ki nga xam ne dafay accident ci strada bi. obligo di legge la maanaam loi bi moo la ko obligé yow boo boo ci boo ci tombee boo boo deful boo ci taxawut def ci li nga war a def bu la yoon bu ñu la gaa yi jàppee mën nga am problème kon obligo di re di legge ak obligo morale tamit yow seen xel waru la may nga romb leen yow bàyyi leen foofu ñu nekk ci état boobu pour li la vita mën naa tax ñoom ñu mucc ñu bañ a faatu o evitare che subisca ulteriori danni fisici te mën naa tax tamit duñ am yeneen gaañu gaañu yu gën a garaaw waaw il fine del primo soccorso il fine mooy njariñ njariñal njariñel primo soccorso è quello di et ed eventualmente cercare di mantenere in vita il ferito mu ne mooy nga assister te li gën a am njariñ mooy euh, nga fexe ba du faatu moom mi nga xam ne moo mooy ferito bi ferito mooy ki gaañu ki def accident ki blessé kon simplifier et immediati interventi ni nga koy defee mooy da ngay def ay intervention yu simple yu immédiat yoo xamante ni du garaaw te du du du nekk lu compliqué simple lay doon in attesa di più adequati yi balaa soccorsi yi nga xam ne mooy seen liggéey di egsi yow nga mën a def dara ba ñoom duñ faatu mu ne nag seen sa senza quindi prendere iniziative di specifica competenza medica bul def nag loo xam ne nag médecin yi ñoo ko war a def comme tey Euh, nga def yi fu bàyyi daam nga xam ne bu ñëwee tombé si loo xamante ni euh, lu lu simple la ah mu war a def bandage wala war a nettoyer góom bi rek mën a damay opérer loolu mooy specifica competenza medica loolu moom bu ci dugg mukk inoltre kon bisogna evitare danga war a moytu per quanto possible ak no noo mën a def che il feretro subisca ulteriori danni et que vengano praticati interventi baliati fexe ba ki def accident noonu ki blessé noonu bañ a am yeneen i gaañu gaañu te bañ koo def tamit loo xam ne dafay isbalia bañ a ci li ngay def ordanoso wala def loo xam ne da koy lor da parti di altre persone wala loo xam ne keneen da koy def yow fexeel ba moom mu nekk en sécurité rek ba ambulance yi egsi loolu la bëgg a wax occorrerà subito segnalare l'incidente e chiamare i soccorsi qualificati mu ne nag subito li nga war a def mooy nga siñaale accident bi ba pare woo secours yi ñu boole ci beneen bi muy ferita sanguinante ki nga xam ne dafa def accident ba pare di nàcc lu bari am góom buy buy nàcc lu baree bari c'est la victime présente una ferita sanguinante ki def accident noonu la victime mooy ki nga xam ne mooy victime bi ki def accident bi bu fekkee dafa amee ferita sanguinante mooy góom buy nàcc deret lu bari c'est possible bu fekkee mën naa nekk. mettere il ferretore in posizione nga teg ko ci position seduta mu mel ni kuy toog nga toog loo ko o sdraiata wala nga kii ko mu jaaxaan inatesa che arrivino i si jaaxaan xaar soccorsi si ñëw loolu boo ko mënee def nga def ko coprire tamponare con materiale stérile mu ne góom bi nga jël benn morceau bu stérile boo xam ne amul microbe teg ko ci bës au quando au quanto pi possibile pulito wala morceau bu set rek boo xam ne dafa set nga teg ko ci góom bi daal di koy bës pour deret bi arrêté facendo pressione per bloccare il sanguinamento nga bës ko def pressione mooy nga bës ko sa loxo pour naaj naaj bi arrêté. lavare la ferita mooy nga raxas góom bi kon acqua solo se sporca di mu ne nag nga raxas ko ndox bu fekkente ni rek na loolu raxas bi mi ngi am bu fekkente ni dafa tax suuf. per evitare una possibile infezione, per non bagnare infecté evitare qualsiasi manipolazione della lésion mu ne nag nga moytoo def ay manipulation maanaam di ci dugal sa loxoog di am yeneen loo ciy def lésion mooy gaañu gaañu bi nga bañ cee dugal sa loxo di ko manipuler yooyu defal lim la wax rek te nga yem foofu. non rimuovere eventuali corpi estranei conficcati nella ferita bu fekkee ndaam lu dugg ci yaram wi ah nga bañ ko dindi rimuovere mooy dindi eventuali corpi estranei mooy loo xam ne da nekk ci bokk te bokk ci. conficaati bi dugg ci yaram wi perché ndax la loro estrazione dindi bi nga koy dindi potrebbe peggiorare l'entità dell'emorragia mën naa gën a yokk deret bi nga xam ne mooy génn bu fekkee par exemple danga fekk butéel bu euh, vitre bu dugg ci yaram wi jam ko wala morceau dénk nga daal koy dindi deret bi day gën a sànni sànni ko day gën a sànni deret prestare molta attenzione a non farli affondare nella ferita durante la fasciatura ba pare boo koy fachaare boo jël benn morceau takk góom bi fexeel ba li nga xam ne moo jam nit ki mu bañ a dugaat ci biir gën a suux gën a gën a surux ci biir nga fexe ba du du loolu du am celui fortunato est consciente ki def accident noonu bu fekkee dafa consciente maanaam xamut mi ngi lay xool mi ngi ànd ak xelam est possible daal li daa beere ak quoi mën nga ko jox ndox mu naan ci culture da ngay gis demande bon boo boo xam danaan la kii def accident bu ko jox mu naan déedéet koy sa falso ñu yem fii ba beneen yoon